rafetlu wu ma ko dara dara dara dara dara caamaas ndax euh, waa ji gannaaw mu dem dafa bind lettre ah. lettre ba mu bind kam doon sëyal la ca am yu mu nettali ci moom waaye loolu warul tax sénégalais yi jël xale bu jigéen boobu lu nañu ñu yekk ko ko ndax yedd nag yërëm ko gën ki ñàkk ñetti doomam mu leer la ne ci yoon pour mu normalaat sax faaw ñu yóbbu ko saytu ko ndax choc boobu euh, ku mu ku mu dañ ci yow di nga tal leneen lu dul di di déglu ku lay yedd jabar ji da ko def dara jabar ji defu ko dara xam nga li dax defu ko dara caamaas doom du jaay prentaa ñaata jural na ko ñetti yoon mm. ëmbal na ko ñetti yoon mm-hmm. xale yi ku leen gis ci photo yi xam ne xiifuñu maruñu ku la jural benn yoon rek amoo fayam bu la tooñee sax war koo mën a baale rawatina ku la jural ñetti yoon ëmbal la ñetti yoon wasinal la ñetti yoon gàddul la yaral la àdduna ànd moo ci am te ànd nag boo ci ne léeg dina am ay o zd ba léeg mu neex léeg mu naxari loolu mooy ànd ndax Euh, yàlla si ñëwul ñun benn contrat boo war bu tax ñu yaakaar ne dafa war a dafa war a dafa war a neex ba faw éternellement waaye xamal nañu ne du naxari ba faw it waa ji moom daa jël doom moom ak ay doomam ñetti doom yi la jël tëjoog ñoom ci fa mu doon liggéeyee ci cabinet ba rey leen rey ñetti doom yi Camas yoo xanaa nawoo ci dëkk bi rey boppam yoo xanaa dëkkoo xam non non déedéet billaahi maa ngi ci réew mi mais information bu leeree day am ku la ko nettali mu gën a leer mm-hmm. lii laa bëgg mm-hmm. ndax fii mbaboor bi la. information bu fi génn. bu bu information yi bi njëkk génn sax dañ na woon dafa pikir xale yi. ñu ah, génn li may waxatee waaw alors que ah, mais mais bu autopsie bi génnee xam le nañu du woon du woon du piqûre sax xale yi ndax gis nañ ci seeni yaram ay ay ay torture yoo xam ne def nañ leen ko. donc donc ah. euh, euh, euh, lu ñaaw la. Hmm? tàggoo daggan na ak dagan na bid am na ci loo xam ne bu ma fa naree tollu man nga may indil ay problème ak sàmbiti njaay ak biral jóob bit leexi demal ma dem loolu man caab la mais de mooy dëgg ma dëgg jaboot gaa ngi nii téel bu nu màggee dañ may wuy sa far fas ma yor leen ndax sama deret lanu ci lu wér du ma leen bàyyi buñ la wuyu si leen nga baleen ci jàmm daal buñ la gis nga euh, sama yaay dara jarul ci àddina ak lu la fi mën a def. ñi rey defuñu la fi lu tax nga jël say njaboot. di ko oh. dugal seen néeg leen rey. defuñu la ko amul waxuñu la fi li tax ngay jël sa njaboot dajale leen di leen rey di sa bopp. Mm-hmm. waa léegi boo demee lan ngay wax yàlla. mais Thiamas. yàlla kay boo àggee xam ah Massamba Ndiaye moo ma wax lee moo tax ma leen. doy na waar doy na waar Massamba Ndiaye moo ma wuy moo ma piis fee leen. doy na waar. kii moo ma ci poto ma leen. doy na waar lan ngay leen wax Alaaji Yuusu mm-hmm. man mbir moomu. dama xamul ndax fiir la kenn xamul lu mu doon dama xamul ndax soxor la. dama xamul ndax xabtal la. dama xamul ndax ak wayadi la. ak daf la rek daf. parce que gis nga ëmb benn doom rek sax benn doom jural la benn doom rek dafa metti billaahi jigéen ju la ëmbal doom. jural la doom amoo fayam amoo fayam. déedéet. man gis naa benn xale lu góor boo xamante ne nee na moom bés keroog ba mu takkee jabar daf ko yóbbu lune de miel daf ko yóbbu Dubaay jëndal ko or mu am doom. ba mu wasinee mu toog ba quelque temps ba kànkam dëgër mu ànd ak jabar jaag doom ja wutali ko or boo ko waxee mu ne ma man sama jabar mënu ma ko fay déedéet ndax biir ak wasin dafa metti mu ne ma damay jékki saa bi mu ëmbee su ma toogi su ma tëddee ba guddi yenn saa yi damay jug ci nelaw gis sama jabar moom kenn mu toog ci lal bi tiim biir xam nga kii am na yërmande xam nga kii xalaatu la rey doomam hmm. doomam jooju waaye xam nga ne kii def lii man Youssou dama ragal ne kii dañ koo xabtal. waaw daa am ak sagoom. xam nga xam nga loolu. wala dafa am lu xew. Mhm. gis nga sama jarbaat bi mhm. li mu wax nii. Mhm, soxna Ayda. soxna Ayda. waa ji def lii. ba sama feeñ. waaye ah. kër yaa ngi toj. ëpp naa def de. barka Alaaji Malick. kër yaa ngi na dëgg. barka wax na dëgg yaa ngi toj. barke sëñ Babacar Si. kii moom moo feeñ lekk. billaahi ndax rey gi rey gee tax am na góor yu xam ni ñu ngi jahanama te deewagul góor wala jigéen waaye déglu ma ma ñëw rek mani ay tonton Malick am na góor ñoo xam ni ñu ngi jahanama ñu ngi safara jahanama te deewagul am na jigéen ñoo xam ne ñu ngi jahanama te deewagul est-ce que xam nga ne am na kër yoo xam ne boroom kër yi ba nu gëjee tëdd ak seen jabar ci benn lal ëpp na ñaar fukki at ndeysaan te ñu ngi bokk dugg ñu ngi bokk nekk ci kër gi hmm? waaw waaw gadi waaw waaw am na kër yoo xam ne hmm. gis nga man damaa ruus a gedd <coughs> alaaj Yuusu mm-hmm. man damaa ruus a gedd xamul tax mm-hmm. kor du gedd de su ma dellusiwaatee war a lekkaat damay am gàcce. boo tax man du ma gëdd. te yàgg yàgg di nga si non man du ma gëdd. yoon barke yonent yàlla Muhammad sama njaboot gi dara man di ma gis. umu xayri nii mooy sama mag nga bokk ndey ak baay man du ma gëdd. man benn jeeg mosuma taajal man la suur na. Hmm? ah oui damay lekk ba suur. même bu même bu bu bu coow amoon. ma ni bu ñu rayantee boo ma joxee ma lekk. ala Youssou moom moom moom dépense am dafa joxe dépense am. pour ah, waaw xamul tax <laughs> damay rus. ëllëg juboo amaat ma toog ci bol bi di lekk. dëgg la te loo mënta bàyyi. dëgg la teel koo téye teel dëgg la. dama ni boo geddee ba bisu tabaski noonu la wàññi faar yi su ci poobar. bi koy summi. waaw su boobaa ndax yow di nga boo dee gedd ba tabaski kay continuer di gedd. waaw waaw tabaski rek du bésu gedd. ah moo tax man ni la man du ma gedd. dëgg dëgg dëgg nag ah. waaw ki nga xam ne dafa mer ba sa jabar togg lu neex nga ne ko suur naa mhm. ndax mer mhm. walla nga mer yow ku jigéen ki mhm. mere sa dëkkal ba tax nga jël kuuru kaan mardi taali toj télévision bi cey toj verre yi toj vaisselle yi toj vitrine yi suuf teg naa ci sama bët man am na am na dani waaw barke yonent yàlla Muhammad la ilaha illallah mere sa dëkkal yàq lu doon meuble ci kër gi eh, tak lépp nga tak ko am na mu jóoru ci suuf waaw léegi jàmm del siwaat kër gi foo sunn seen parontol pax mu day ni bàjju ab weer a fa newoon ñu màbb ko nga dese gàcce télévision ba ni wóolu vitrier bibliothèque ya lépp tak nga tak ko di ko xool wala nga mere sa jëkkër daw wàcc escalier yi fekk pare-brise otom nga toj ko. Hmm. yëfi dof la yàqante ko. yëfi dof la. mu xëy am oto ba mu war pour liggéey. Hmm. wala nga mere sa kër fekk ko ba au nga xam ni ñii moo yilif. mooy seen kilifa c'est le directeur général de la société. Hmm. ndax saaga ko ci seen kanam. am na waaye dama bàyyi yow. dani ah ah am na. ah oui. parce que Serigne Babacar Si. ah mani. Ah. ça réew mi lu fi ne te feeñ li nëbboo ko raw mhm. kër yaa ngi toj mani jeeg gi nan dellu ci lu sunu ndey yi nekke woon démb ak barki dem mhm. ak góor ñi it bàyyiwuma kenn waaw yow sa boroom kër nan ngeen mën a tëdde ba dara desul lu dul ngeen war a mën a tëdd nekk ci bànneex ak jàmm ak salaam nga naan ko sama natt ba ak ndawtal gi ma war a joxe suba ak bor bi ma war a am na ñoo xam ne bala ñoo santaat seen jëkkër rek ba duñ tëdd ngay waxi natt ak di wax ay ndawtal ak di wax yoxu ñàkk fay te góor góor benn sidit la bari na góor góor tëddal xëy di ko bëgg a xeet xoolaatal sa bopp yow yaa war a xeeb sa bopp. dëgg am na gor yoo xam ni soo leen waxee dara ci guddi gi seeni si nit la waroon a jariñ dootum la ko jariñ na yaakaar dañ leen a takk xala wala dañ leen a yeew fekk laa leen yeew yow. muy seen yaa leen merloo yaa leen merloo. <laughs> laa leen wax lu tax lu gis seen bopp ba lan waroon a man mënatuñu ko. moo tax il faut ñu delloo si xel yi. Mm-hmm. tey waxtaan nag ak njaboot gi. Mm-hmm. parce que sa njaboot. say doom. ci lañu bu la gisee ngay xeex ak sa jabar. di xeex ak sa jabar guddi ak bëccëg leen di perturber sa jabar booy xeex ak moom guddi ak bëccëg te yor ay doom yu jàng mhm. yor ay doom yu toll ci seen dëgg dëgg dëgg jamono mhm. war a tekki dara war a am jom mhm. seen ndey ak seen baay heure bu na ñoon di atte ñuy xeex ndax yooyu doom danañ am jom te looloo fi ne kër goo dugg ndey yaa jabar yaa nga jëkkër yaa ngay xeex di saagante ay ndey seeni doom taxaw di ko fekki wala seen i doom bënn seen i bët di jooy mhm. ndax boo mënta àtte sa ndey sa baay ñuy xeex loo man ci jooy rek ngay mucc jërëjëf bilaay ci jooy rek ngay mucc papa ma da fay da nga fay doxee nga fay doxee ñu ñu daal di daal di ñu tàggatoo xam naa ne waaw balaa dañu bëgg yaay uma xëy di tëj di nga ñëwaat euh, euh, euh, def troisième morceau waaye te waxtu dañoo xoj bi moom faaw ñu faaw ñu faaw ñu béral ko waaw xam nga xam nga jaare jaareel jaareel foofu rek xam nga alaaj Youssou uh-huh. mbaboor mi day école. Mm-hmm. boo xam ni sénégalais yee ko bëgg. Mm-hmm. africain yee ko bëgg. dëgg la. dans le monde entier. ñun daan ñu mm-hmm. yow xam nga li ma la wax. dëgg la. dina wax ni émission mbaboor mi. ñu ngi defar lu bari ci kër yi. am na kër yoo xam ne ginnaaw ba yàlla ak yonent bi wéyee. émission mbaboor mi mooy seen médecin moo leen di faj.